ñàkk ànd ci li nga xamante ni moom moo moom moo xew euh, ak le report. waaw mais damay commencer comme fi nga junj ko léegi soxna Oumy moomu nga xam ne ñi ñuy déglu daan nañ dégg ñi wax turam. Euh, suñu jàmbaar jooju nga xam ne suba teel gi ci li ci bëri bu dóor ñëwul ak moom moo daan ñëw teeñu technique bi. si démb mi ngi wàcc doon euh, kii xam naa gars yi rek. mooy loolu def katu ñaawteef ñi ñi ñi manifester ak def katu ñaawteef dañuy raaxaloo loolu moo tax ñu ne ay kenn waru koo kenn waru koo xamb mm-hmm. parce que boo ko xambee rek xamoo après kan moo ci kan moo ciy mucc yow mi mm-hmm. ko xamb sax mën nga ci bañ a mucc donc du doon moom donc certainement dina ñeneen ñoo xamante ne am na subir nañ dégâts collatéraux yi nga xamante ne manifestation yi jub jubal na ko si donc képp koo xamante ne gaañu nga ci wala képp koo xam ne yàqule nga ci wala képp kuñ ci jël loo xam ne sa la ñi ngi lay massaw euh, di ñaan yàlla rek euh, mu gën ñu indil dal euh, ci mm-hmm. réew mi mm-hmm. maintenant buñ revenir ci li nga xamante ne moo fi amoon démb xam nga affaire bi dafa simple mm-hmm. ñi dañ ne dañuy manifester dañuy dem place de la nation ne dañuy wax ne d'accord ñu ci euh, élection yi nga xam ne dañ koo dàq. dañuy wax dañuy wax. manifester pacifiquement man gis naa ñu doon bind manifester pacifiquement. Mhm. amu fi kenn koo xam ne dama dégg mu ne damay dem place de la nation yóbbu sama brouette xeer. Mhm. wala kii ne damay jël sama saak def ci ay xeer kii ne damay yóbbu fital wala kii ne damay yóbbu fitt. Mhm. kii ne damay yóbbu xeej. man dégguma ko gisuma ko. si waaw kon ñene woon dañuy dem dañuy manifester pacifiquement li ñu fi démb takk deeri xeex yi ñuy xeex fi yëpp ci Sénégal yëpp. un dixième bu buñ ko mobiliser woon ñu encercler leen ñu encadrer leen taxawee booru RTS bi taxawee boole kolobaan bi am fu ñu fu ñu taxawee comme nañ ko daan taxawee. encadrer leen bàyyi leen ñu def seen i podium ñii way way ñii xaxaar xaxaar ñii wax lu leen neex wax lu leen neex bu 19 jotee ñu dajale seen i bagaas dem seen ñibbi dem seen kër toog fa. loolu je pense que au moins bu dégénéré bu ñuy ñibbi dégénéré def na ko sunu bu subaa ku du ku ne damay marché nga ne ko du n fi marché parce que mu tasee gis nañ li ngeen dund. mais non seulement nit ki dafa jàpp ne man dañ ma tooñ ma bëgg a génnee dama ko fi waxee maanaam dóor ma ba pare ne doo ko fi jooyee mais amul fen ñoom jàpp nañ ne da nga leen a tooñ ñu ne dañuy dem si biti génn yuuxu li nga xamante ne moo ñu métti reeteet ko ñëpp dégguñu mm-hmm. ngeen leen déedéet du ngeen ko fi waxee fii ku fi génn ma dóor la mm-hmm. lan moo doon gën a simple tey ji ñu bàyyi la ñu génn ma ne taxaw fa ñu taxaw wax place de la nation lañ jëm mm-hmm. nga su fekkoonte ne dañoo woote dañu dem ba opposition bi daf léegi su bëggee yëngu-yëngal danaan damay def manifestation xam ne dañ ko koy tere si dañ leen comprendre xam nga mënoo jóg tey ji nga ne Mahfouss par exemple le lundi ku nekk na nga génn nga taal pëna fii na nga def ni lundi bu 10 heures rek nañ génn ñu jaxase dëkk bi déedéet uh-huh. dañ naan dañuy manifester tout en sachant que ne bu ñu manifester duñ leen bàyyi ñu manifester donc ñu wàcc seen bopp ñu provocation lay doon uh-huh. mais kooku di provoquer uh-huh. daf may provoquer ma ko déet léegi da ngeen di manifester ñëw leen ngeen toog manifestation yi fi autorisé yi ñu gisagum yëpp yëpp amu ci benn boo xam ne dégénéré na mhm. au nom de quoi tey ji ñu bëgg subir loo nit ki injustice ba pare naka doo ko fi jooyee fan la am maanaam door ma ba pare naka doo doo ko fi yuuxoo mhm. su ma yuuxoo nga fekkaat ne ma dóoraat ma na ma noppil waroo jooy mu doon ñaari ñaari ñaar yoo xamante ne tey jii euh, bu ko bu ko kii nangoo keneen ki du ko nangu. te li li li xew demba tey jii boo gisee manifestation yi ni mu doon demee dañoo foogoon ne Sénégalais yi. Euh, noonu léegi sonn nañ euh, bàyyi nañ def nañ ñi def nañ ne le mais démb am na fi am na fi ay dégâts yu doy waar yoo xamante ne booy gis yenn yenn yenn vidéo yi dangay waaru si yàlla. Mhm. moo tax war naa ko fii démb ñi yaakaar ne Sénégal benn peuple la boo xamante ne xamuñu violence non non peuple bu extrêmement violent la ñu am. Mhm. violent bu baax a baax a baax wax naa euh, waxoon nañ ko fii lañ fi sulli ab néew taal ko. Mhm. loolu an ma an la lan ma ko gën a kawe ci violence. Mhm. ak bind ni mu ni mu sacré ñu sulli fi nit taaw ko di ko traîner dans a boue. Mhm. di ko diri ci mbedd mi. jël fi ab brique dóor ko ci boppu policier gis nañ ko fi policier taxaw xàcc visé à bout portant tiré. gis nañ ko fi. loolu boo ko fi gisee gisaat ko fi gisati ko fi gisati ko fi ndax munoo def ay pexe yoo xam ne di nga moytu ba lii dootul amati ci réew mi mm-hmm. léegi ñu dugal ñu ci benn situation boo xamante ne fi ñu toll ni kenn xamul lan mooy ñëw te lii bis bu ñu yàlla yóbboo ci 2 avril te ñiñ ko séqal delluwuñ ginnaaw yaakaar naa mu gën a graaw parce su boobaa nag xeex bi dañ naan dafay légitime léegi nag mm-hmm. parce que ab njiitu réew kat assemblée nationale du ko tabb ñëpp xam nañ loolu sa légitimité foo koy jëlee ci peuple bi nga koy jëlee mm-hmm. ba boo toogee di wax sax looy wax dañ maa fal mhm. mais bu le 2 avril passé est-ce que dina mën a taxaw mu ne dañ maa fal lu muy wax assemblée nationale moo modifié ma toog fi mhm. su boobaa ku xeex moom da ngay taxaw am raison damay xeex ak moom parce que falu ma ko fi parce que du sama président moo tax ma ne lii buñ ko lijjantiwul moom kilifa gi réew mi mu deltu ginnaaw xam ne il n'est jamais trop tard de bien faire il mhm. n'est jamais trop tard nga nga renoncer loolu yaakaar naa bu ko defee mën na doon loo xamante ni mën nañu génnee ci guuta bi ñu nekk nii uh-huh. mu bañ a déglu ñi nga xam ne ñoo koy puus nankaan non ngi yoon ba te ñoon sax gëwmë ne bëreeti nañ parce que bu fekkente ne moom coalition ba mu nekk uh-huh. ñoom ñoom ñoom AJ ak yenn coalition yi ñoom nee nañ d'accord ñu ci report bi uh-huh. yow sa biir coalition am na ay nit yu ci d'accordul ba nangu ñoo dem ci plateau yi défendre ñaari nit wala ñetti nit ngay gis jamono ñu ñooy wër télé di ko layal daa daa jafee layal na dafa jafee layal mhm. kon loolu nga xam nga ne kon fii nga dugg nii et puis Mahfouz boo jëlee mbir nga sumb benn affaire mhm. mais sawaa dëkk sa waa continent bitim réew ba ci auduy ñëpp naa laan déet sañ bi mhm. mais attends doo dellu ginnaaw nga taxaw soyons simple yow sa biir kër nañ fa def noonu sa kër gi wax nañ sa waa quartier wax nañ koñ ba wax nañ ba région ba wax nañ ba dëkk ba yëpp wax nañ mais doo dellu ginnaaw rëy amu ci Abdoulaye Wade bu mu jëlee euh, bu doon Abdoulaye Wade moo fi ne car blanc bu mu ko doon dugal hmm. ak ticket bi hmm. mais daa dellu ginnaaw hmm. nee nañ am na ay coup de yu am dañ ko woo mu ngi toog palais affaire dëkk bi di jàng mu dellu ginnaaw mais est-ce que bu doon ñëwee tey duñ fay seen téléphone ni indi gendarmerie mu génne ñi fi nekk ni nettoyé place Soweto ñu daal di jàllale loi bi après booy xeex ko nga ne booy dañ koy xeex quelques jours bàyyi chaque fois loolu la ñuy ah. def dañuy ah. mm-hmm. ñu bëgg daal di dem mais loolu du yoon maa ngi ko doon rappelé barki démb Serigne Cheikh nee na dafa toog ñuy coow Abdou Diouf mu ne lu ngeen ko coow coow ak lu ngeen ko critiquer am na benn qualité mm-hmm. su jàppee su ma ko nee bàyyi mm-hmm. loolu dafa am solo mu ne su jàppee ak lu mu dëgër dëgër bopp su ma ko nee bàyyi mm-hmm. parce que daf may dina dina kilifa dina am fooy tool da ngay déglu nit ñi et je pense que bu dégloo nit ñi rek dina xam maa ngi dégg maître maam Adama Gueye mu expliqué bi ñu amee nee na dafa dafa dafa dafa woo ki nga xamante ni moo di euh, moo nekkoon général moom du Niang woo ko kooku wuyu ko est-ce que mun naa la gis mu ne ko bien sûr ñëwal mu gis ko ñu waxtaan concerté nu ñuy defee ba dénnuwee euh, crise bi ñu nekkoon jóge fa euh, dem gisi ñeneen yeneen kilifa jóge fa dem fekk ji opposition bi mel na lii bu amee tey jii kilifa yi koo ci woo sax duñ la wuyu cest à bi ñu nekk nii hmm. mën naa ne ñoom ñoo ñu dugal kon ñoom ñoo war a xool yan yan ni ñuy def pour génnee ñu si nag man damay wax na ba léegi mën na dellu ginnaaw parce que weesagul ay jour rek lañ ci ñàkk quelques jour rek la ñu ñàkk kon bu ñu defee effort mën nañ dellu ginnaaw rectifier le tir je pense que moom mooy doon li gën ci Sénégal rectifier euh, euh, le tir euh, weesuwul mais tamit Moustapha li nga xamante ni dañ ko koy layale Eh, ndax kenn ki nga xamante ni moom moo ci jot a génn laata ñu ñëw ci eh, ki décédé eh, ki nga xamante si moo ci ñàkk bakkanam ak yeneen yi ci des muy bavure policière yi lañ koy layal mooy que ni dafa am ay opposants yoo xam si ni ñoom ñoo demandé à que ñu reporter élection bi mais loolu est-ce que lay la bu lay bu dëgër la. Mm. te te opposition yi te opposition yi ñëpp génn nañ ku nekk en tout cas yaa ngi wet ne du man donc ban opposition lay wax. mais wala est-ce que moom waroon na nangu tey benn opposition di làqatu. di reporter di ko dugal ci report ba pare après ñooñu du ñu génn assumer seen ay responsabilités après moom ñu ñu point mais damay souligner damay souligner double jeu yenn ci opposants yi am na ci. Mhm. balaa maa ñëw ci mbir mi su suñu double jeu yenn ci opposants yi parce que am na ñun double jeu la ñuy joué. Mhm. gis nañ leen fi ñu bind président Macky Sall ne ko arrêté le processus bi arrêté processus mooy lan. Mhm. bu ñu arrêté processus mooy lan 44 euh, spoliés mooy spoliés ba ñu génnee du wax man am na benn vidéo ma dégg ñu indiwaatal leen ko ñu naan président arrêté processus bi. mais égoïste Mahfouz mënul weesu élection am ñu kale la nga ne affaire dafa war a taxaw warul mën a yegg te nga xam ne ki la kale ni moo am sañ-sañ kale la te bu la kale mënta delluwaat ginnaaw loolu article 92 bu suñu constitution moo ko wax si kon ba liste bi génnee toog nañ fii nga toog fi ma toog fi ñu ne lii mënu te dellu ginnaaw ñii ñooy dem élection hmm. ñii recalé ma ne la recalé li ñuy def dañuy per seen temps nañ dem ñu tafu ji si ginnaaw kenn jàppale ko léegi ñoom ban intérêt lañ amoon di junj report di junj di junj report nekk fi def ay front di dugg ci lu nekk ba ma ne leen lépp lu ñuy def nii dañuy per seen temps ñu jóg ñu dem xool candidat bi leen doy ñu jàppale ko mais defuñu ko léegi ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo toog fii di ruube di def lu leen neex dajax koo xamante ne tey ji moom da doon occasion pour dàq élection yi mm. c'est pas un prétexte parce que ñoom mënuñoo delloo ginnaaw président Macky Sall kon il est faux nga ne recalé ñoom ñoo ñaan recalé ñoom ñoom seeni i mbir la mm-hmm. parce que am na si biir ñoo xam ne bëgguñoo dem élection ñoo ñan lañ toll kan lañ maxuus mm. ñoo xamante lu ñu représenté am na ci. Mm-hmm. lu ñu représenté fan la ñu toj ñooy kan léegi ñooñu tey ji ñooñu si ñooñu la ñuy sukkandiku ne duñ dem élection. Mm-hmm. il faut qu'on soit sérieux man mës naa nekk député mës naa nekk directeur mës naa nekk ministre. dafa tax ma am benn voix boo xam ne su ma demee élection damay gagné dara. Hmm. léegi ñooñu ñu ne nos recalés yi ñoom ñoo tax tey ji président ma Sall dafa c'est archi faux. non non yi taxuñu ko non moom jotoon na leen a tontu ci ab lettre. jotoon na leen tontu effectivement mais nag mënu ko arrêté et euh, moom mënu ci dara. mënu effectivement parce que mhm. donc euh, euh, pour man bu dee wax ne am na ay opposants yoo xam ne si mhm. nii ñoo ko ñoo ko wax pour mu arrêté ko mooy ñi nga xamante ni peut-être que bokk nañ ci course bi mais pare wuñu bokk nañ ci cour parce que mais ñoo ñaan lañ ñu boo xoolee ñi ñi nga xam ne ñooy favori ñi mënoon jàll. Hmm. mooy waa taxaw nga jël euh, waa Benno. Hmm. nga jël Bassirou Diomaye. Hmm. ak kan euh, encore ku fi ku fi ku fi ku fi tenoon waa PDS dañu leen génne. ñett ñoo ñoo fa desoon. ak PUR euh, ñeent ñoo ñoo fa desoon. PUR taxaw Pastef ak. Benno ñeent ñoo ñoo fa desoon. keneen ku doon ñëw surprise ngay doon peut-être faiseur de roi nga am benn kim ni hmm. ak ak benn doole bi ñent ñooñu ñoo fa doonoon favori si biir ñent ñooñu tey ji kan moo fa mënoon taxaw tey ji kan nga ci gén mu noonu moo ci taxaw mu ne mu ne